mais aboy aboy lan mooy aboy avant tout aboy turu aboy loolu di aboy. aboy rek ba dëkk ndayaan mu neexoon ma rek waaw ma continuer ah. loolu moo ko waral loolu moo ko waral. kañ nga dugg si làmb ji. làmb ji 2018. 2018 waaw sama premier combat moom la kii doon bëre moo du ànd ak Baye Mandione. fële ah, Thiès voilà maa bëre premier combat. Lamine ñu nga foon. voilà merci. wax nga dëgg 15 mars 2018 Faye ko tëggoon Leewtoo production. merci voilà. foofu nga a bëre. ak Mamadou Diouf a doon bëre premier combat bi. vidéo baa ngi si man yaa ko doon rapporté. waaye maa ko ma yónnee loolu. waaw amul xalaat. yónnee ma ko yónnee ma vidéo bi. incha allah dinaa ko yónnee bu sumee yàlla. boo 2018 2022 boo xoolee ça fait 4 ans ou 5 ans nga bëri tey grand combat bi mooy sa premier grand combat bii mooy sama troisième grand combat. ok waaw maa ngi bëre kii. Scorpion. Scorpion maa ko daan Ibomar waaw 2020. waaw. deux deux 2020 waaw. no non deux mille deux mille dix neuf. waaw deux mille vingt. laa béré kii Scorpion. après ma béré Fils de Zallo Tëngéej deux mille vingt un. waaw Fils de Zallo. ma daan ko tegaat ci ki nga xam ne moom mooy caatu montagne. merci. alwaxa moo la alwaxa. nga ko tudd. Eh, waaw lu tax mu muy alwaxa. ah daa mën a wax waa Dakar booy ñëwee day nga ragal. ma ne jooleel ma nga. ma ah. daan nga si une minute. mais booy ragal ku nga ñemee ko. dama kaa daan bokkunu sax. lu leen wutale. kaay baax la woon nekk. kaay baax a nga nekk coach la ñeen non pas de biir ah. wóor na yàlla ah. maanaam lañ <laughs> lay daan avant ak seegunu wóor na yàlla depuis ko daan ba léegi ah. billaay man parce que man dama si déglu dama lire kene sa sa coach mu ne bul sonal sa bopp merci mm, coach nu mu tuddati Malick Thiombane Malick Thiombane waaw dana ma téye loxo droite bi teg sa garde day ñëw merci ba ñëwee yeen juyoo dama ko jàpp rek mu ñibbi waaw da nga koo jàpp mu ñibbi mu ñibbi mais bi da din ma arrière mais du ma génn saako yi. din nga arrière mais doo génn saako yi. saako yi. ok parce que ba ma ko defee tooñ moo ab lébu du daw. du daw déedéet. léegi bi mu dawee gis naa mu mbot la foofu. du ma mbot. mbot na kay. <laughs> waaw mbot na mais du ma dem quoi. lan moo la téye ba demoo. non ñun ay bérékat lanu ma wax dëgg yàlla taguma boppa de mais bérékat lanu. Ah. billaahi. ok baa gisee foofu noonu. dem nañu ba la génn saako yi mais maa ko tourné waat parce que xam na ma ne dalal tëdd. yaa ko indiwaat maa ngi indiwaat ci biir. ba seetaane action bi naa ko gis maa ko tourné waat si biir. waaw léegi bi nga ko tourné ci biir foofu noo def. dama ko tegal siis mu ne dala tourné mu dóor ko dënn bi mu tëdd. ok kon teg ci siis bi. siis bi dem ma ko saree si guddi. barke Ba nga saree nanu siis si guddi <laughs> ba weetal. siis bu weetal waaw ah, moo la siis <laughs> ah. man dama la gis nga ñëw ci lamb ji tamit gisuma ak ay takkaay yu bëreeg yooyu. non waa CNG nag war yaa wax ak nit ñi quoi. Ah. lii nii rafetul. waaw montage est-ce que la wax mais kii moom la mu ikkati ñëw saaw ma ko te loolu du yoon. lu mu ëkkati. gisu leen li ma doon saaw. saw saaw sànni boog. ah lim la doon sàtti jël doon ma waaw. loolu bokkul si lamba. xam nga na def na daw fépp nun du nu yaaxal lamba nun waa kaay ba wóor na yàlla mais tamit affaire na nga teg yoon mhm. parce que lii nii rafetul parce que tey jii ba ma fi jëloon defet man na yaa wax ne daa dem ba foofu bàyyi waa ji mu di ko saaw la nekk te man bëgguma yaa làmb ji. moo tax lu la def nga noppi. man noppi. parce que boobu da xam ne yàgg yàgg. daa jeekul dugal na si versaire yi sept fois. lu mu fa doon man dala changé moyen sax. lu mu fa doon wut daa jeekul baaxul. ah versaire lu fa xew. ah moo ma jaaxal man mbër ma la dugal versaire ma suma kaa gis. Ah. <laughs> wóor na yàlla. yow kon gaañ nga booy bi de. Tidiane Faye na ma may chance. waaw. mais man balaa béeram may ma sens bala ngaa yegg ci Tidiane Faye ni nga ñëwee ci lam ji gisuma la nga takk dara ci sa du ay du daam du ay dàkk ndaam du ndombo du dara lii la daan mbër du ñëw gaa yi fee la takk la nekk noonu lii <laughs> la daan mbër du ñëw esat du ñëw esat ah. ah. bilaay kaay baax lu seen liggéey rek barka Serigne Babacar si liggéey kese entraînement danoo matee soir wër na yàlla tëngeej la noo nekk si stade tëngeej bi danoo liggéey ba 11 heures wër na yàlla Konaté maa ngi am ay victoire bi mu ngi France merci <laughs> moom doon yóbbu chaque jour fële gradé loolu mooy secret bu waa Kaay Ba dañaa liggéey moom écrit moom baa fa demee daal daj la métti moom moo lo gisulaa chaque saison ñu jël fee ok léegi léegi yow lan mooy sa métier man géej bëre géej bëre da ngay napp nii géej bëre léegi expecté dee na ah, man ngaa napp waaye man ma campagne Gambie nan lan ba Gambie Gambie dama faa dem la dem géej waaw. léegi fo foo jëm ci lam koo la ko dégg naa léegi nga tudd Tidiane Faye. fay na dama may chance balaa bàyyi. ah professeur la. comme baaba neexe ngoo dama yàgg a rêvé pour bëre moom. da nga ngir bëre ak Tidiane. waaw loo rêvé ngir bëre ak moom tax nga rêvé ngir bëre. comme baala comme baaba ne. à fay Tidiane Faye. non may chance ah non bon demee nu waxtaan. a part Tidiane mu set keneen. Ah. Malick waa dina nu jom. waaw du sa xel daa xaw a ragal. <laughs> ragal. ab li ragal. billaay te waa kaay baa amul ab ragal barke sëñ Babacar billaay gis neen nga ni mu ma ëppee waaw dama kaa dee daan ka ay caaka fay la maa kontaagal ay ngañ seen ci yéen la ne barke sëriñ Ba no boo ko écri ay Petit Baye ay Abdou ay Albouri ay Arabas doomu Jalaw Jalaw waaw te nu kot daa bére moo tax kaay baa kay la fi tegu ñu jël ga ñaati yoon nu la jël pe bari na trois fois. la wax waa Fass Ndakaaru. ñoom ñu ko ndiwoon année rek. Serigne Ndiaye numéro 2 day ko ndiwoon. Serigne Ndiaye dama ko yërëm sax ba nga gisee ma ne pungal daanu na. Serigne warul woon a indi booy bi. Serigne <laughs> daa juum daa juum indi. giri daa gis. giri booru gis naa ko. daa nga gis. giri 2 daa leer ñu daw. Ah. <laughs> Eh, bonne chance. doy na waar kon Gris Bordeaux Tapha Gueye Lac Rose Gris 2 Aboy dina na ngeen a daw ne na yéen a ko doon entraîné andiwu ngeen ko la tax andiwu ngeen ko xam ngeen ko waaye na kii boo ko déggee Mansour muy wax nga xam ne lébu pire la lébu si ndey lébu si baay lému nam lému maanaam li limu li mu saf ki ko macca ko xam mais kii lébu piir la lébu la nam parce que buy wax kàllaama gi lébu ngay dégg kàllaama gi lébu ngay gis moo tax nag Mohamed Ali Ndiaye faw nga am loo ma loo loo ma parce que combat bi suivre nga ko de très près yaa ngi dégg gis nga dégg nga xale bi li mu expliqué si bëre bi action bi bi mu amee nee mu moo ko indiwaat ci biir yaa ngi dégg coach jaar naa la dégg nga xale bi li mu wax aboy non aboy dañ koy félicité vraiment il a pas démérité am aboy nag boo ko gisee parce que bi ñu ñëwee dafa tombé ak maa toog fii moom moo ngi nekk fii mais c'est vrai boo ko déggoo liy wax mu xam na fi mu jëm il faut que yi di bàyyi xel dara gis nga boo préparé woo ngay ñëw ci événement ñëw ci làmb dafa am loo xam ne bu ko fàtte lii tax nga préparé ñëw bu ko fàtte jëlal sa temps mystique c'est vrai aar la ci làmb cosaan la mais du luy gagné fii fii loo fi liggéeyul du ko am fii boo fi ñëwee da ngay tey te la nga liggéey nga jëm foo ne ko ci tey te bañ a sous-estimer sa adversaire pas ak nga respecté ko adversaire boo ko respecté wul loo ko gañe te tey boo gisee Aboy bi mu ñëwee ba léegi def na li muy def mais da nga ko génn pendant tout ce temps mi ngi échauffé wu fi nag. di daaw di échauffé wu pare na bu yàgg nag di échauffé wu di réew ça dire que ni kooku pare na bu yàgg nekk na ci biir làmb ji mais son adversaire nag da nga koy gis peut-être mi ngi doon ambiance show nekk ci bagage mystique c'est une chose mais mystique néew ma bokkul ci làmb de mais le sport d'abord le sport d'abord mystique moom day mottali day rafetal aar cosaan mais la vérité mooy loo liggéeyul fii doo ko am fii nii. Uh-huh. suuf gi loo fi liggéeyul doo ko am. et booy bi il a démérité. Uh-huh. vraiment macha allah ça veut dire que ni kii boo ko déggee muy wax. Uh-huh. gëm na boppam. te mi ngi liggéey. e sincèrement c'est bàyyi leen ko xel ci làmb ji parce que sincèrement xale bi la il est sérieux te bëgg na li muy def macha allah. kontaan si ko. non ñoo ko bokk ah, ça bouge pas. ça bouge pa pare nag demain c'est le 11. incha allah rabbi. le ons onze bis la boo xam ne comme on dit l'histoire retiendra. retiendra lu masta am. lu masta am pour une fois. ci xam nga li xew rek ci millénium bi lay xewee. décembre deux mille vingt deux. Uh-huh. ñu ne dañuy décorer Lamine Seck borom loro. doomu ndeyu Babacar. ñu ne dañ koy lu uh-huh. luñ koy décorer. gars yi naan du tableau. du pot ñi naan du mbatin du dara. Uh-huh. luñ koy décorer. ñu ne la caabi oto lañuy ñuy yëkkati ñu jox ko ko. une voiture wala un voiture. waaw ça une voiture. une voiture pas n' importe laquelle. Eh kan moo def loolu. Ablaye Diop Xaas. Ablaye Diop Xaas ah. yàlla def na nekk doomu Sénégal mhm. jàngat bi ñu mën a jàngat ci loolu. Sénégal yëpp war na ñoo toog def taxaw seetlu mhm. ne ab lay Diop Xaas li mu def lan lañ ci mën a jàng mhm. liñ ci mën a jàng bëri na lay Diop Xaas boo xoolee amul sens interdit ci réew mi. nitu nit ñi la ñëpp ko bëgg macha allah euh, te foo ko fekk danga koy gis ci live yi partout muy dimbali doomu aadama yi ci li nga xamante ni tey loolu lay liggéey tey lay Diop xaas tey bu ko Macky Sall defoon ministre ci domaine ba mu nekk wax dëgg yàlla fu mu jaar gongo rek la ñuy wax parce que réew mi loolu lañuy xaar ci képp koo xam ne citoyen nga nekk nga am sa wàll nekk ci nekk ci di liggéey te nag dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak salaam ak sutura parce que Ablaye Diop Khass dundam am na njëriñ ci réew mi ci askan bi mm-hmm. te Ablaye Diop xaas lépp loo mënti wax ci moom ci social mm. ci la ñu gis mm. lañu ñu gisul ëpp la ñu gisul yàlla nag na ko yàlla bàyyi fii ci kanamu kanamu njabootam mm. di nuyu nag jabaram mm-hmm. sumbulu sumbulu mm-hmm. tubaab nee na qui s'assemble se ressemble dis-moi ton ami je te dis qui tu es dis-moi c'est madame je te dis je suis sumbulu bàcc li wax dëgg yàlla taxawaayam ci Ablaye Diop Khass mhm. rafet na bàgg ci lool mhm. tey mhm. dama bëgg sumbulu ñu jël ko def ko jigéen joo xam ne dañ koy jël defal ko siège boo xamante ni mooy naan la reine la princesse de tous les temps parce que da muy sëyalee Abdoulaye Diop Khass loolu la góor ñëpp di xaar ci jigéen boo xamante ne may nañ la ko tey mu nekk sa soxna soxna yi roy leen ci Soumboulou Bathily jigéen la mhm. macha allah yàlla ba mu koy yàlla ba mu koy mooñal mhm. wax dëgg yàlla macha allah fu la lamp yi jóge leer nañ mel na du ko neex sa ñoon tiitaru def lu ko neex ah mais loolu yëpp defu ko mhm. ça veut dire que ni dafa muñ ne tey damay sëy ba dee damay muñ ba dee te sama jëkkër mooy sama galaaj Sénégal jëm kanam kooku yàlla na ko yàlla defal jàmm ça bouge pas ça